def ko ak. Euh, professionnalisme donc nag. donc euh, hier Sénégal kontaan nañu. voilà ci débat bi et que je sa plateau quand il faut le dire en toute objectivité Sénégal yéen lañ doon seetaan. parce que diversité invité yi. ak surtout laaj yu am solo yi. Euh, boobu ñoom Ablaye Mbow jaar nañ fi ba dëbb ko ba mokk donc montrer la voie alors yow nga ñëw jàll ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. Uh-huh. jaajëfal ñëpp mais c'est pas mon mérite c'est uh-huh. le mérite de la Sen TV uh-huh. parce que c'était un travail d'équipe donc ma lay féliciter di féliciter ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci jàpp c'est tout le monde quoi maa ngi leen di nuyu di nuyu ñi nekk ci plateau bi Abdoulaye Mbow maa ngi lay nuyu Salif Joseph force occulte <laughs> ak euh, Cheikh Omar di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan comme dama leen dab rek di nuyu ñëpp daal. merci gàttal nuyoo bi. merci beaucoup euh, Ndeye Fatou ñu ngi nuyu euh, euh, Ablaye ñu ngi nuyu Rijal. <laughs> ngi koy bu baax. Umar man nuyu ma ko daf maa bàyyi. Umar Umar moo namee. Ablaye ma ko daf maa bàyyi. et puis di nuyu également le grand sëñ Saliou Guèye. waaw waaw Sénégalais vraiment Sénégalais yi amoon nañu mbégte démb. Mm-hmm. justement ci sama boy la. yaa koy pompeloo yow yaa koy dawloo. nee na ma daa gaanaam sa boy baa ngi àllu de. mais nag am na lu mu wax nee na boo nekkoon garaaw. Ah. kon am na lu mu teg mais. loolu après la non non dama ko <laughs> dama ko ne si formation bi la bokk. dama que parce que sama boy la maa koy pompeloo. maa koy ataayaloo. maa koy bindaloo ay bataaxal na ko corriger ko. absolument kooku mooy sëñ Saliou Gueye ñu ngi koy nuyu mais dañoo yàgg parce que sëñ Saliou et moi mine de rien c' est depuis ah oui c' est c' est na ànd ànd bu yàgg la ñooy ñooy dëggante oui absolument lépp et puis en l' écoutant hier euh, vraiment on a vu un sëñ Saliou constant. ci ay idées ci ay voilà moom moom du du du changer. alors mm-hmm. sans plus tarder ñu dugg ci waxtaan bi actualité bi xam ngeen ne benn la muy euh, ce discours à la nation du président de la République hier sénégalais yi ak surtout la diaspora et surtout. Euh, sur le plan international ñëpp doon ko xaar xam ba xam euh, day bokk ci élection 2024 yi am déet en tout cas décision la bu nga xam ne euh, moom dikk na ci léegi leer na sénégalais yu ci bari bari que le président de la république du bokk ci élection yi nga xam ne véritablement moom la ñu fas yéene def en 2024 xam na sur le plan historique Ablaye dina ñëw je pense que ne ci moom mooy premier président buy organiser ay élection Euh, te du ci euh, euh, bokk loolu lépp daan ko daan ko daan ko yaatal bu baax a baax mais Ablaye ci lu jëm ci wàllu élection présidentielle yooyu gis nañu ne le président de la République dafa déjouer pronostic yu bari bari bari ndax bëri na sax ay kuréel yu fi sosu ngir xeex mbirum troisième candidature bëri na également débat politique bi débat bi ci sur la place publique Euh, ñu bëri moom loolu rek lañ doon wax on ne parlait que de ça euh, fàtte woon nañu débat programmatique bi fan la ñu jaar pour yóbbu Sénégal ca kaw mu ñëw déjouer euh, pronostic bi laaj bu ñu laaj nag mooy justement est-ce que du pari risqué ci coalition bu mu jiitee muy benn Bokk Yaakaar ci bu ñu xamee ne juróom-ñaar wala lu ko néew rek a des ñu tàbbi ci élection présidentielle. waaw en en plein jour. alors que le soleil est au zénith. Mm-hmm. armé de ma torse je cherche la vérité. Mhm. xam nga bëccëg ndar kàmm naaj gi ne naaj gi ne feng noonu la mhm. naaj gi ne feng. nga yore sa lampe torche naan da seet dëgg. <laughs> dafay daal di jafe nga gis dëgg. lu tax ma wax loolu moo di dëgg benn rek moo amoon. que position boobu la ñu mës a am te mësuñu si varié. Mhm. mooy ba sa njëkk président warta dem. si élection yi ba sa ñaar mooy président. jàppoon na waxoon nañ ko waxoon na bokk wala bokk bokk naa si xëy na ko njortoon ni président si nu muy waxee ak euh, mujjanteel discours am communication yu mu délivré du dem si élection yooyee te dëggal na ko te mu nekk véritablement une prise de position une prise de décision boo xam ne mhm. au-delà de tout autre constat et de toute autre considération c'est à saluer mhm. parce que Mohamed Senghor dafa yegsi au pouvoir toog pendant vingt ans

à la souveraineté internationale ba tabb président bi jiitu moom mooy njëkk nekk président boo xam ne dina organiser te du bokk loolu nag c'est véritablement euh, gën a taaral li nga xam moo di démocratie Sénégal parce que qu'aujourd'hui la démocratie sénégalaise si décision bi laa wax si décision bi jëm si mandat bi Aujourd'hui, elle est chantée un peu partout en Afrique, elle est chantée peu partout à Donc, véritablement, euh, la que nga ne man je suis par rapport au miroir que nous sommes en matière de démocratie en Afrique. Et c'est important à souligner. ñaareelu mbir mi bu jëm si li nga xam ne moo di tànneef bi ngay walaaj. Mm. tànneef si biir Benno. loolu la tànneef si biir mm. Benno. biir Benno dafa am locomotive boo xam ne mooy xëcc wagon yi locomotive boobu mi pour la république di APR di parti au pouvoir la rest ay wagon la yoo xam ne ñoom ñooy parti yi nga xam ne ñoo nekk ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar mhm. wagon yooyu ay jamono yii dafa xawoon na am nit ci diggu dóom yii xaw a am ñàkk dara te jamono ji toll booy xool wagon yooyu daanaka la ci am ci ay doomu aadama muy diri bareetul benn wagon moo fi nekk nekk un peu partout implanté wu massifié wu am ndëgër laay am profil yu baax jamono ji moo di APR. parce que tey nii boo jëlee le parti socialiste. pour un parti historique. qui est le parti socialiste aujourd'hui parti socialiste ñaari camp la. Mhm. guerre intestine crise de leadership. sont en train de se réunir d'ailleurs. crise intestine euh, guerre intestine crise de leadership entre le clan incarné par Aminata Mbengue Ndiaye. et le clan incarné par Serigne Mbaye Thiam. oui Serigne Mbaye boo ñëwee si partie yi nga xam moo di parti historique LD. Debout. yóbbaale ñoom Abdoulaye Bathily yóbbaale nañ ko LD bi fi nekk kan moo fa nekk Nicolas Ndiaye moo ko jiite am na expérience politique euh, ak ñoom sa àndal mais lan moo des ci LD bu googee mm-hmm. boo ñëwee ci PIT c'est un parti pratiquement euh, composé essentiellement ñu baal ma de de de de de de vieillards yoo xam ne ñu ngi fi depuis pratiquement quarante ans. Mm-hmm. te parti boobu gëj na liggéey ci li nga xam ne moo jëm ci massification. Mm-hmm. boo jëlee euh, RTS. booy xool partie boobu tamit tas na bu yàgg émietté wu na ñoom foo de Roland Diagne yóbbaale nañu lu bari si caf ga la fa des daanaka dara nekkatu fa. donc benn parti moo fa nekk am lépp jiite lépp mu di APR donc yow booy xool même par rapport au profilage. Mm-hmm. si profilage yi déggugoo kenn si biir bennoo ñu tudd beneen leader. parce que amul si biir bennoo beneen leader buy incarner un leadership politique boo xam ne. électoralement euh, potentiel euh, électoralement potentiel pour mën a mën a taxaw incarner un leadership boo xam ne daañu njort ni kii nii war na mën a yegg fenn a un niveau de résultat euh, par rapport à ces élections jëm si élection présidentielle yi. Ah. donc boobu ba léegi kan la ñuy tudd Abdoulaye Daouda Diallo. Oui. il a la légitimité il a la légitimité politique étant membre fondateur de l'Alliance pour la République waaye itam nekk un militant discipliné politiquement correct jege lool président Macky Sall ba jamono ji mooy directeur de cabinet mais il y a des limites objectives sur le plan politique et sur le plan du discours bi nga xam ne dina créer une sorte d'attractivité deuxième élément bi yàgg nga dégg ñuy wax du baax Ba du Ba am na le bagou il a l'expérience am na tenue bi am na discours bi mais Amadou Ba aussi ne saurait faire l'unanimité au sein de l'APR. ah oui c'est clair. ñu tudd kan Aly Ngouille Ndiaye. Mhm. pourquoi pour ses et par ses en pour et par ses entrées au niveau des familles religieuses telles que Touba assise am na ko au niveau du département de Linguère mais cela ne suffit pas parce que il y a un passé récent le concernant sur le plan politique te loolu itam dafa nekk un point de faiblesse. Oui. jamono ji kañ see mujj tudd kenn la mooy euh, ma gis ko ay journaux titre ko mooy Mamadou Moustapha Ba l'actuel ministre des finances il n'est pas en tout cas pour le moment dañ tudd dañ koy tudd dans dans dañ koy tudd si li ma liir dans certaines unes de journaux ndax bëgg na wala bëggul mais je me réfère à ce que la presse a dit mm-hmm. mais dans tous les cas on ne le connaît pas politique mm-hmm. jusqu'au moment où on ne le mm-hmm. te li ko xam peut-être que en termes de militants en termes de sympathisants au sein justement de la coalition xëy na amaana jamono ji tembe bariwul mm-hmm. donc Mohamed mm-hmm. depuis hier soir depuis hier soir oui. suite à la déclaration et quelle que puisse être la déclaration li ñu doon xaar ci président quelle que puisse être la position te position bi léegi xam nañ ko la constante qu'est le président Macky Sall au niveau de l'APR la constante qu'est le président Macky Sall au de Benno forcément bu noonu waaw wala mu ne déet te nee na déet il aurait été transformé en une variable aujourd'hui la constante est devenue une variable très une variable dans la mesure où quelle que soit la personnalité bu mu mën a désigner mhm. unanimité bi muy incarné moom depuis 2012 ba jamonoy tembe il n'y aura pas un autre leader boo xam ne au sein de benn de de l'APR par rapport au au sein de Benno par rapport au choix mhm. dina mën a incarné li nga xam ne moo di unanimité boobu est-ce que ce sera un choix fait par lui pour demander aux autres de suivre ou ce sera politiquement repensé pour jëm si un choix multiple pour congrès mën a décider laa xëy na kooku mooy si lay ëpp légitimité que bu dee choix la boo xam ne dafa jóge si kii nga xam ne moo di président eh président parce que itam il y a la problématique liée au numéro depuis APR boo koy xool depuis Abdou Abdoulaye Wade. absolument <laughs> Abdoulaye Wade. <laughs> oui. après Idi après Macky booy xool parti politique au Sénégal. yu majoritairement. les quatre vingt dix neuf bi quatre vingt dix neuf pour cent. numéro deux. donc derrière le le le le leader qui incarne un certain leadership fort on ne voit pas d'ombre Dès, mm-hmm. dès lors qu'on ne voit pas d'homme, le choix sera très difficile si par extraordinaire leader principal bi ñu war ko éliminer pour nga mën a gis kenn kuy émerger parce que toutes les têtes qui dépassaient au niveau de la paire ont été guillotinées. absolument te Ablaye fu loolu dafa am solo daan ci ñëw sëñ Saliou Saliou Joseph Ndiaye euh, déjà daañu ñëw ci l'impact euh, que cela peut faire ci euh, biir coalition Benno Bokk Yaakaar mais on aimerait quand même savoir yow sa gis-gis ci Euh, cette déclaration du président de la République qui dit que ne du bokk ci élection deux mille vingt quatre yi alors euh, ñu bëri jàpp ne dafa déjouer pronostic yu ci bari bari parce que fan ko doon xaar ñëwul ñëwul ca foofa jàngat bu njëkk bi nga ciy def. mooy euh, sant yàlla bu baax a baax a baax a mm-hmm. féliciter pour l'acte de courage qu'il a posé.

dañ ko folli par les urnes fal président Abdoulaye Wade le président Abdoulaye Wade exiger une démocratie demaat élection ñu folli ko par les cartes par mm. les urnes tey jii ki nu faloon doon koy taxaw di organiser ay élection boo koy jël da ngay jàpp ni commencé na ñu tayle ko ki ñu ko tayle ñu folli ko folliwaat kooka noonu hmm. fal keneen kooku croiser les bras di organiser ay élection ci jamono nag boo xam ni Sénégal dañu yàq xar kanamam ci àddina bi ci lu bari.